waa kaaw Bril fight foo man damay blâmer Bril. man Bril laay blâmer quoi. lu tax nga blâmer Bril. ba lu tax may blâmer Bril Bril euh, gis nga Abdou. Hmm. Abdou leen dafa dafa baax quoi sàmm sa ngor. ñu dafa war am ngor. boo déggee nit na jaay na ngoram. non mu jaayul am ngor. Hmm. nit jaay na ngoram da ngay dégg Sénégal naan waaye diw daa jaay ngoram. musul am ngor musul ngor. boo ko amee doo ko mus jaay. Hmm. dèjà ba mu jógee fii la doon rab. ay voilà di tasaare. oui après lu mu def transhumé dem commencé mbalax. mbalax commencé di classaat mel xam nga. a tudd quoi di daaga sant ak ay gars yi. oui xam nga naa musique ngi avant nga dem musique rap tu faisais du rap. oui def ni mën na rap. Mhm. mais même booy dem bay rab di changer sa sa style musical sax na nice quoi. dëgg la est-ce que comprendre nga. Mhm. léegi pour le pour son cas avec euh, je lu tax ma koy blâmer mooy. Mhm. tey jii comme loolu la expliqué. benn jeune bu nekkee ci ci pour dem. Mhm. danga ko war a dimbali ko oui parce que ñun jigéen ñi dañ leen xoolee comme suñuy raq. jigéen ñi dañ leen xoolee comme suñuy yaay. Mhm. mais tey ji mënoo mënoo gis benn gel mu ñëw sa label. oui bëgg lu dul nga dimbali ko mu xaw a am benn benn buzz bi. bëgg lu dul nga jàppale ko ci lu mu bëgg mooy lan musique. ci lu mu bëgg mooy culture am. Mhm. nga koy chantage. sa xel war na war a mun a ñaaw loolu. dem nag ba boo xam moom même appart. di dund ak moom yenn affaires yi. rafetul moom bu ko xoole woon comme rakam bu mu bokkal ndey ak baay mhm. non seen cas du egsi fii quoi boo gisee ma ne la moom laa blâmé parce que mooy moo sut niveau moo sut niveau jigéen benn jigéen nu xelam sa gee noonu nu weenam sa géem la xelam yi sa gee kon yow muy góor mhm. sa sa sa wareef mooy lan à chaque fois mhm. à chaque fois da nga a nekk xam nga un peu auteur quoi ci ci ku jigéen ki boo nekkee en auteur ci ku jigéen ki da nga mun di ko conseiller takal fii sa tànk defal li defal li defal le mais pas di dem bay sekk ak moom yenn affaire yi ba ku jigéen ki am audace di jël sa téléphone di la naan dalay dalay chantage dalay chantage yooyu quoi yooyu damay gis ni dafa nelaw quoi te game bi looloo fi bari so bis bi mhm. Abdou looloo fi bari day gis ko bëgg a jouer benn série rafet na macha allah nga ñëw réalisateur yi jël sa numéro ci suuf waaye ñëwal def nii nañ dem fii xam nga booy tamit duñ bëgg loolu siw te siw jarul loolu quoi siw warul joxe warul warul tax ngay joxe sa tat dëgg la ndax fii léegi xam nga tout est visualisé surtout internet baa ngi fi ak Adama mu ngi fi ah. voilà Adama mu ngi fi xam nga var yaa ngi fi da def lii tey suba d'ici cent ans du dañ d'ici cent ans na si nit di bàyyi xel mun nga dem ba wàcc liggéey ba dee mais xoola gars yi il suffit que ñu duggaat YouTube tapé sa affaire rek sa dossier génnaat ko nit ki booy def dara na nga si bàyyi xel pas pour le buzz buzz mooy lan man gëwuma affaire buzz. te Bril gis nañu dañoo jàppale ci wàllu di dimbali booy bi ak na lu nekkul si suuf quoi loo la loolu la loolu la mooy problème bi nag. oui loolu mooy problème bi. dañ lay jàppale mooy affaire politicien rek. oui politicien mën la jàppale jox la seegu cent millions. di xaar ci deux cent millions yoo xam ne war na am ci affaire bu bu ci cent millions yu la jox yow. Mhm. parce que la. dëgg la nag moo baaxoo loolu te loolu du yoon nit ki booy bi am na talent mm-hmm. jàppale ko nit ki am na talent jàppale ko ba mu nekk si affaire am mu dem quoi. bu dee bëgg jigéen boo na ko tax bu doon man lu mu gën a ñaawlu am na flair si moom ba muy def ak yooyu noonu. ne na ko ñaan mu dagan quoi mais pas nga tëj booy bi sa biir appart def ak moom di ko génne ay son booy bi di di di tasaare taan bi yow ngay tasaare booy bi daa <laughs> sa